rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma ya alimu allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin mbokki jullit yi ak fu ngeen mën a nekk ci goxu àdduna dañu suivre ci seen sit bii di seen info ak ci seen émission bii di Azikra seen mbokk imam Mouhamadul Bachir Darame moo leen di nuyu nuyub lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullah waaye di ñaan li nuyu boobu làmboo yàlla na ko sama borom boole ñu làmbal ñu ñëpp muy barke jàmm yërmande ndax loolu ci lépp xaj tabarakallahu ñi fas yéene ñëwaat ak comme niñ ko baaxoo woon rek di ko amalee seen émission bi e ñi leen di ndokkel ba tey ñu ngi ci weeru koor yi di leen ndokkel ci fan yu mag yi ñu ne rawatina fan yu mujj yi muy ashurul awaaxir muy fukki yu mujj yi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam jàngale nañ moom yonent bi fukki yu mujj yi bu ñëwee dafay amaat beneen taxawaay bu bokkut ak ba mu daan am gaa daan na farlu daan na góorgóorlu ci mboolem fanweeri koor yi waaye fukki mujj yi da cee rawati daan na ko jox gëdd ba dañuy dañuy nettali sax ne daan na yegg ci sax daan na yee waa këram ñuy jug di taxawee guddi gi kon loolu rek lu muy jàngale mooy ne guddi gi guddi yi ñu toll tabarakallahu guddi la yoo xam ne yu màgg la ba jar na ku ci nekk nga profito si kon ñu ngi leen koy bàyyiloo xel mbokk yi weeru koor jeexagul nag waaye xin naafila jeexagut bari na ci ñoo xam na dañuy mel ni man bu weeru koor bi rek tabarakallahu da ngay gis ñi daal di tayal naafila biñ daan sonnee dootuñ ko defati wala buñ daan def fukk dañ koy wàññi naka noonu yeneen jëf yi baax yi dañ koy wàññi tayal ci waaye nañ góorgóorlu buñ bokk ci ñi nga xam ne ramadaani yii na lañ mooy ñi nga xam ne ñoom weeru koor rek lañuy góorgóorlu lañ jàpp ne ci lañ war a jaamu yàlla waaye nañ bokk ci ñi nga xam mooy rabbaani yi mooy ñi nga xam ne waxtu nekk rek ñi ngi jaamu yàlla di wéetal seen borom loolu mooy li am solo waaye jaamu yàlla tënkuwul ci at comme niñ ko waxee woon ci yenn émission yi passé tabaarakallahu suñu waxtaanu tey wi nag incha allahu taala bi hawli wa quwati ñi ngi ko fas yéene jagleel laylatul qadri mooy la nuit du destin lan mooy laylatul qadri incha allah tey suñu waxtaan ci loolu lay aju ak ndax laylatul qadri moom nekk na loo xam ne luñ taxdiid la maanaam luñ limité la ci bis bane ba nga man cee teg sa loxo ne bis sangam la incha allah loolu it danañ ci ñëw waaye it danañ ñëw ci lan mooy lan moo lan moo tax ñu tuddee ko laylatul qadri ak ngëneel li nga xam ne làmboo na ko tabaraka wa taala ak li nga xam ne moom lañ bëgg tabaraka allah bu guddi gaa boo ci tolloo nga mën di ko def loolu yëpp incha allahu taala boo ñu teewloo danañ ko danañ la ko baaxee incha allahu taala waaye mbokk yi avant loolu ñi bokk xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim rawee moromi prophète dafa bëri ndax ni ko yàlla def moo tax ak ko teg boo xoolee dafa am juróomi guddi yoo xam ne yàlla daf ko honoré daf ko wooteralee juróomi guddi yooyu nag laylatul qadri bii ñu bëgg waxtaane ci la bokk juróomi guddi yooyu yan yan la nga xam ne dafa làmboo ngëneel yoo xam ne bu ci nekk rek yow jàmm boo ci tolloo mën nga cee góorgóorlu ba amee ci réussir àdduna ak àllaaxira juróomi guddi yooyu bokk na ci mooy guddi gu ñuy tuddee laylatul mu'jizati kon laylatul mu'jizati wal qudrati mooy guddi gi njëkk gi mooy bi waa Quraysh dajee ñëw ne ko il fallait que ñu gëm la da ngay xar weer bi waaw boo ko defee rek ñu nangul la ne yàlla la yónni yonent bi alayhi ci mbaaxu yàlla joxañ baaraam bi weer bi weer bi na tàcc xar ñu teg ci seen bët waaw waaye gëmuñ de ñu ne ah lii njabar la moom la alquran wax ne iqtarabati saatu wa shaqa alxamar wa in yaraw aayatan yuridun wa yaquluuna haazaa sihrun mubiin waaw kon gis nga guddi googu ni ci yàlla teralee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak lan bokk na ci geneen guddi gi ñu tuddee laylatul ijaabati wa daawati waaw mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw bi nga xamee ne mu ngi woote waaye dem ba xaw a néew doole ci biir Màkka ndax baayam Abu Talib génn na àdduna ak nday Xadija radiyallahu anha ñaar ñi nga xam ne ñoo ko kufriroon doon ko dimbale jéem nañ àdduna nga xam ne ruseetuñ ko kenn mu ne naa jéem na dem Taif ca nijaayam ya waaye tabarakallahu dem fa daje fa lu métti loo xam ne boo demee ci xilaasu zahab ma Maodo radiyallahu anhu nee na dajee na fa ak loo xam ne su ma ruustoon nëbbu xam-xam konoon duma ko tudd laqa min as-sufaha ma la bihi wallaay ndeysaan waaw ñu teg fa lu métti boole ka xale ya dof ñu koy sànni xeer ba tànk yi da métti waaw yonent salaatu wasalaam daw ba ca roon mu tëdd waaw tëdd noon nag waaw celoo ko fa ay jinne fekk bañ koo fekkee mu gaaral leen lislaam wax ak ñoom ba convaincre leen ñu dugg ci lislaam ndax dañ ko fekk muy jàng alquranul karim moo moom la jinne daan wax naan moom la yàlla di wax ne wa istarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al quran falama xadaruhu qaala ansitu falama qudiya walaw ila qawmi munzirin lañ ca teg mooy qaalu ya qawmana inna sami'na kitaaban unzila min ba'di musa guddi googu noonu foofu yàlla ci mbaaxam dimbale na ko bam mën a convaincre ay jinne ñu tuub dugg ci lislaam guddi googu nag moom la ñu tudde laylatul ijabati wa da'wa kon bokk na ci yu ko yàlla mooy guddi googu ak ban guddi bokk na ci guddi yooyu mooy laylatul hukmi wal qadiya mooy guddi ki nga xam ne ci la yàlla saa borom di réglementé mboolem li nga xam ne mu ngi war a xew ci bi ak atte ko ne lii nii lay xewee nii lay demee nii lay demee demet bam jeex loolu la ñu tuddee laylatul hukmi wal qadiya ak bokk na ci guddi yooyu mooy gu ñu tudde laylatul dunuwi wal xuru ñi gën ko xamee ci laylatul isra wal mi'raj waaw mooy guddi gi nga xam ne ci la ko yàlla baaxee woon mu jugee makka dem fa nga xamante ni mooy Jérusalem jugee fa dem ci kaw asamaan diyaale ak borom moom la yàlla nett subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa allazi barakna hawla kon boobu mooy ñeenteelu guddi gi mu des lan muy guddi gi nga xam ne tey moo ñu moo soxal waxtaanu tey muy laylatul qadri ñi koy tuddee laylatu tahiyati wa salaami waaw lu tax ñi koy tuddee laylatu tahiyati wa salaami danañ ci ñëw kon juróomi guddi yi mbokk yi moom la yàlla honoré yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak mboolem xeetam ndax bëgg ñi ci occasion pour mën a tabax seen àdduna bam mu amee ci texe àllaaxira kon nañ fonk juróomi guddi bu ci nekk rek boo ci tolloo rek góorgóorlu ca yokk ci sa jaamu yàlla bu bokk tak nanga ko daan yokkee incha allahu taala laylatul qadri mbokk yi mooy lan laylatul qadri mooy guddi gi nga xam ne ci la alquranul karim yi wàcc waaw ndax yàlla sunu borom wax na ci alquran ne inna anzalnaahu fi laylatil xadri waaw ñoo wàccee alquran ci guddig laylatul qadri waxaat ko ci surat duxaan ne inna anzalnaahu fi laylati mubaraka inna kunna mundilin waaw laylatul mubaraka googu boroom xam-xam yi nee nañ mooy guddig laylatul qadri te laylatul qadri goog nag ci alquraan ci ci ramadan la nekk moo tax mu waxaat ci suratu baqara ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquraan linnaas kon laylatul qadri mooy guddi gi nga xam ne ci la yàlla wàcce téeréem bi mu gën a fonk téeréem bi gën a mat muy alquraanul karim wàcce foofu ca lawhul mahfuz ñëw ci baytul izz waaw baytul izz nag ci la nekk su ko defee histoire yi jot a xew yëpp day ñëw àddu ci participer ci di ko régler di ko régler ba diiru vingt trois cent yi mat yonent bi alayhi salaatu salaam jugee fi bàyyi ñu téere boobu nañu feeg yéen a ngi ciy jàpp rek di jàpp sama sunna du ngeen moo tax alquran mbokk yi dañoo war a gës xam lan mooy dëgg-dëgg alquran parce que nekkul loo xam ne pour julli la rek wala pour nit jugee fi ñu toog jàng kaamil wàcce ñaanal ko non waaw kooku projet de société la waaw waaw projet de société la boo xam ne dafa dafa ñëw pour war a le société bi nu ñuy dundee ñëpp jullit bi ku dul jullit ñoo ceeb nag kon loolu yemu ci nit am soxla ñëw taxaw nga ñaanal ko ci wala nit jugee fi ñu nañ ko jàngal kaamil wàcceel ko wala julli jot nga julli déedéet dañoo war a dem xam lan mooy dëgg-dëgg alquranul karim te loolu nag pour ñu xam ko mooy dañuy nangoo jàng xam lii yàlla di wax ak kon nañ bàyyi xel ci loolu lan moo tax nag ñu dee ko laylatul qadri laylatul qadri xam nga buñ ne layla al layla mooy nuit mooy guddi al qadri nag foofu dafa am ñaari sens am na ñu ne maanaam al qadri bi maanaam asharaf waaw asharaf wa takrim ak tanzim maanaam màggal ak tedd nga maanaam guddi gi tedd nga gi mu am moo tax ñu tuddee ko laylatul qadri waaw muy guddik tedd nga gi ak guddi gu màgg gi loolu mooy benn sens bi am na ñu ne maanaam laylatul qadri bi maanaam qadri foofu bi maanaam al hukm waaw mooy atte guddi gi nga xam ne ci la yàlla di sujet mbir yëpp ne li lii an bi lii moo ci xew diw sàngam lii nii laay dogal ci moom demet demet top ko ba mu jeex waaw kon am na ñu ñu wax ñaar yëpp dégg ku ci nekk nag am nga preuve ñi nga xam ne dañ ne laylatul xadri maanaam guddi tedd nga gi xadru goog ñu ngi ko jëlee ci wa maa qadrullaaha xaq qadrihi waaw mooy màggaluñ yàlla dëgg-dëgg màggal ay ma azamuhu xaqa taazimihi ñoom foofu lañ sukkandiku ba ne kon mooy laylatul sharafi wa taazimi su ko defee njakkante ak temps bi laylatul xadri boobu ndax taxdiid nañ ko ci alquran wala sunna maanaam ndax mën nañu teg siñ baaraam ci biir alquran ne guddi gi mu ngi nii fii la ko alquran tuddee ba mu leer wala déet wala buñ demee ci sunna it lool danañ ko ci fekk bu dee alquranul karim tuddul ko fa foo xam ne tey leer na bañ mën cee teg siñ baaraam ne guddi sàngam la déedéet waaye bu dee ci sunna it nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam junji nañu loo xam ne buñ ko toppee mën nañ ko ci fekk te mooy xadis bi mu jàngale ne taxaru laylat al qadri min ashri al awaqiri min ramadan day leen nattale laylatul qadri ci fukki yu mujj yi waaye tageen koy nattale ci impair yi mooy yu tóol yi lu mel ni tey guddig ñaar fukk ak benn wala guddig ñaar fukk juróom wala guddig ñaar fukk juróom benn loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax léegi nag bi mu waxee loolu borom xam-xam yi ku ci nekk nag génne ci sa xalaat waaw ñuy wax lii ñuy wax la waaye wax bi nga xamante ni moo ci gën a dëgër gën cee siiw mooy laylatu saabia wa ashrin mooy guddeeg ñaar fukk ak juróom ñaar waaw guddeeg ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu ku ci mel ni Ibn Abbas moom loolu la jàpp. loolu la jàpp waaw nee na képp ko xamante ni da nga koy nattale da nga ko nattale ci guddig juróom-ñaar guddig ñaar fukk ak juróom-ñaar waaw kon loolu mooy li gën siiw waaye teewul am na ñu jàpp leneen am na ñoo xamante ni dañ koy nattale ci guddig ñaar fukk ak wala guddig ñaar fukk juróom li mooy na nekk ci impair rek waaw na nekk ci impair yi comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam leen ko ci fukki mujj yi waaye nag ci fan yi nga xam dafa tool waaw su ko defee laylatul qadri boobu nag am na ay ngeneen ak yi nga xam ne bëgg nañ ñi ko ci def incha allahu taala soo ñu toppee danañ la wax ngëneel yooyu yan la ak yi nga xam ne bëgg nañ ko ko ciy ba man cee gañee loo xamante ni dana la texel àdduna ak waaye it danañ ñëw ak yow ci sabab bi tax yàlla jagleel ko umatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam incha allahu taala bu suba ba ñu toppee ci heure bi danañ la wax yooyu yëpp in uridu ila al ma stataatu wasalaamu alaykum wa taala wa